ummu Moussa faidatu sirru secret ummu Moussa secret boo xam ne dala yóbbu ci yàlla di la jox terangay àddina allahum alhamdulillahi fatahu rasaq alhamdulillahi fatahu rasaqu ñeenti baata ngi noonu yoo xam ne soo leen calculé da ngay am 945 juróom ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom soo jëlee allahu muhammad nuuru yu qayumu jibrilu mikailu da ngay am 945 allahu muhammad nuuru xayu qayum jibrilu mikailu soo calculé 945 ngay am waaye 945 plus 945 égal da ngay am 1890 junne ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent fukk junne ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk mooy 1890 nga yokk ci baa allahu akbar mooy baa shin ni mara tombuk baa googu di ñaar nga ca yokk te baa googu mooy siru alquran moy siru fatiha mooy siru basmalatu moy siru lepp jangale won na fi ne alquranul karim siru bepp mu ngi ci fatiha fatiha siru bi mu ngi ci bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim siru bi mu ngi ci tombak baaje baajo tomb gi tomb bu ndaw bobu waaw nga yok ci tomb bobu muy muy ñaar mu jox la 1892 jooni ak juroom ñetti témèr ak juroom ñen fukk ak ñaar allahu akbar lolu nak moy ummu musa degluma اوكي لا لا بارك الله fiikum mbokk mi soo gisee boo gisee kii bi mu jëlee ba léegi ci laa nekk kon umu Moussa bi li ma la wax am nga junneeg juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar mooy mille huit cent quatre-vingt-douze voilà léegi nag jëlal allahu muhammad mooy amul la xalam haadu alif miim laam xaloon ko laam miim xaal ku ber deel mooy amul la xalam haadu mooy allahu muhammad talazim la loolu mooy talzam boolente ñaari tur mu jox la talzam wala boolante ñaari ñetti ismu mu jox la talzam waaw loolu moom la ñu tuddee talzam faataasu kitaab bii am na talzam boo xam ne benn yoon lay jàpp kon nag léegi da ngay jël amul alamaadu 158 la nga jël yuwaani du mooy allahu ahad ba léegi yuwaani du mu ngi noonu 79 la nga jël hada baaw 99 la hal ku ber daat baat alif ca kentu nga jël baaw mu jox la cent quatre junne ak téeméer ak ñeent égal soo walante da ngay am mille huit cent quatre-vingt-douze mooy mooy Umu Musa te Umu Musa gis ngeen te ñaanam nga moo ma xaalama hadu yohanidu hada baaw bintu rox baaw allahu akbar gaa yi ci teg ma yaftihu laahu li naasi ak yeneen ak yeneen ak yeneen lañ cay teg yëpp du surub bi juróomi baat yi muy ismu lay ansam bi ma génne ko nag teg ko mu leer naññi seen bopp yi kenn du su fekkee da nga léegi ismu bi kon mbokk mi damaa wax na da ngay ak saa wala neex boo sëlmalee nga jàng astaxfirullah téeméer jël ismu lay lam sami mooy alhamdulilahi fata wala sàq quatre juróom ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom su paree nga teg ci allahu muhammadu nuuru hayyu qayyumu jibrilu mikaylu allahu muhammadu nuuru loo wax ci àddina loolu ko dàq yàlla yonent bi naan an nuur ak leer la hayyul qayyumu jibrilu mikaylu lu dàq loolu lan nga mën a wax lu gën a neex loolu lan la amut moo dàq len dàq suukar dàq soxna lépp moo moo ko dàq nga jàng ko 945 su paree nag nga tëjee ko ñaan gi nag lii nag lii nga koy tëjee amula halama hadu yohanidu hadabaawu halama hadu yohanidu hadabaawu bintu roxbaawu su ko defee su la neexee nag allahu muhammad allahu ahad su la neexee yohanidu bi nga dindi ko allahu muhammad allahu ahad dagu andi hada ɓaawu binta rox ɓaaw yaay xollu la ci nax baax na waaw waaw barakallah waaye loolu nag moom kenn ku jàng neuf cent quarante cinq cent cinquante huit haadaram ba wala soixante dix neuf bi wala quatre vingt dix neuf nga koy jàng yëpp limi boo ci def baax na waaw allahu muhammad yo haanido hada ɓaawu binta rox ɓaawu cent cinquante huit wala soixante dix neuf nga tijji ko salatu ala nabi bu la neex wa sallallahu wa sallam ala wa sallim um musa ngoog nag yeneen yoon yoo dafay ñëw si yeneen yeneen yeneen xam ne mu ngay mu mu ngay génn ci ci ci ci ci akuluhaa daa'imun wa shilluhaa so ca suratu raxad yi waaw aya 35 waaw <laughs> eh, meññite aljanna yooyu ci la ñuy génne ismu bi ma wax la loolu tey waaw ukuluhaa daa'imun wa shilluhaa allahu akbar soo ko calculé 945 ngay am waaye su boobaa moom ci alquran lay génnaat da ngay ñëwaat ci fasan na yusruhu waaw fasan na yusruhu boo calculé 945 la waaye loolu beneen yoon la kon su ko defee ñëw na ci alquran ñëw si ismu layil en kon jàngal naa na yoonu ismu bi daf na nag alquran ji maa ngi xar beneen yoon wa sallallahu wa sallam ala muhammadi wa sallim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh